j'aurais aimé par exemple dañuy ñëw du ñu yor dërëm du ñu yor dërëm ñu yóbbaale leen ci car rapide dem dikk am na fi amul yóbbaale Tata am na fi amul yóbbaale mais car rapide am na yóbbaale mun nga taxaw war a fay 100 francs nga jox ko fi juróom ñu yóbbu nekk na oto boo xam ne mu ngi fi loo am ñu yóbbu la mooy bàyyi defar yàlla yàgg na fi lool te moo gën tata yi moo gën yeneen oto bi fi def transport bu focc comprendre baax fi may waxee est-ce que yaa may wax bu baax <coughs> donc lii am na ay agresseurs yu nekk ñuy siif nit ñi aussi comprendre la mën a may quoi après bu fi mu bi Tolong gak ayo do après que traduire ko en français waaw waxal waaw rapide yi ñoom ñoo fi fii ci Afrique ñoom ñoo ko créé. yaa ma dégg. ndax rapide yi bu fekkente ne bu dee Europe bu dee foofu ay bagages la fay jël. mais nag ñun fii Afrique ñun ñoo ko transfert ñoo ko transformé defar ko mu nekk rapide mu daw urbain tal ko ay place fii lañ ko daggee defar seen yi ci biir mais su fekkee Europe nag foofu ay ay bagages la fay jël. ñun nag fii ñun ñoo ko jël def ko sunu oto transport defar ko def ci ay ay place di ci urbain di ci liggéey waaw te nekk na oto boo xam ne boo xoolee maanaam ni ma la ko mën a waxee oto boo xam ne oto bu oto bu dëgër la comprendre nga la oto bu dëgër la parce que euh, ay mini car ak beneen marque oto boo fi mënta indi rapide moo la gën a dëgër lim man kenn mënu ko mën naa ñëw fekk foo xam ne ndox day taw ba fees bari yaa ngi dégg bu jaar ci biir xuus ba gerte du fay ndax moteur baa ngi ci kaw xam nga lu ma maanaam li mu li mu li mu li mu mën a teg comprendre nga benn oto mënu ko daj waaw. mani rapide laa wax ci boppam car rapide ñun ñoo ko moom ñun sénégalais ñoo ko moom ñun africains yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko falsifié mais biñ koy liggéey Europe. loolu la defaruñ ko woon pour pour transport dañ ko defoon pour ay bagages fii nag Afrique lañ ko daggee utal ko ay ay chaise muy daw transport fii kon oto africain la ñun ñoo ko Il faut comprendre aussi le car rapide dès qu'il se stoppe du contrôle d'autorité pour son surcharge de passagers ou d'autres infractions routières, le décaissement du véhicule ne lui profite pas beaucoup. Le car rapide n'hésitera pas à dévier le sens de son, trajectoire pour la même direction pour fuir le contrôle et son amende. Son empêchement ne lui profite en rien. Le passager n'est souvent pas d'accord que son retard ne soit provoqué par le cas rapide. Il est vrai, les esprits se chauffent de tête, mais le calme se rétablit à chaque fois. Dans le bus, dès qu'on euh, met le premier pied, il démarre aussitôt. Et ils font attendre les gens. Quand ils arrivent à l'arrêt, ils font attendre les gens. Les gens sont pressés. Alors qu'eux, ils, ils font semblant comme s'ils étaient pressés, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, des fois, ils disent aux gens qu'ils arrivent à tel endroit. Ils vont jusqu'à Sam, par exemple. Et avant d'arriver à Sam, ils font descendre les gens parce que le car n'est pas plat. Donc, les gens sont en train de ah, vous et tout ça, mais euh, se, ils se foutent de tout ça, quoi pour eux, l'essentiel, c'est que leur terre soit plein. C'est dans ces conditions-là qu'ils arrivent à destination. Quand le car est plein, ils arrivent à destination. Bon, en dehors de ça, euh, ils sont réveillés. c'est tout ce que je peux dire de positif en eux. Mais sinon, côté discipline, franchement, il y a plein de choses à revoir. Voilà.

compagnie cherry, ceri tërërëri fan lañu reeri restaurant ba ci ginaaw mairie ma mairie ba xam gisu leen fi yéen sama sow jeri jëri dafa saw jool ci kaw xonk cey bari karaw ma jele won ko daw ready kaw takkoon ci mom sagar ca ba muy ndam xamul won lu dul sok mo tax araw teg ama gatché ba ci kanamu chef de quartier ceri suma ko jappé bu ñu kenn até touru bay fàl ko nara bàcce ndora am jàmm la fadaaw jeki rek ne ma caaw mam seet du nandite amul sakar di dantite. mam lay sedd bi daaw amaguma taw te ci mam la ko yaakaar tek na ma misar ak sama tubéy di sakar te bëgguma bakar. Limu mu def dafa ñaaw li ma yëg dafa bisop bis ma gis mis bu les bu ma pis am ci moom soxla te duma ko ko tis sama caaya gën ti dis